mi toll ak yéen kaay groupe des médias du tribune mu tudde tey jii le régime au crépuscule du mandat républicain projet bi nga xam ne démb moo juróon coow li bindoo ni waxuma la tama waaye comme tabala ñu koy tëggee boor bu ne assemblée nationale bi nga xam ne daanaka député yi démb dañu leen dajaleel woon pour ñoom ñu yóbbu seen bopp abattoir mhm. lii bu jàlloon tey ji ñoom ku si nekk yóbbul nga sa bopp abattoir ce qui veut dire que seen ëllëg kon président Macky Sall moo koy yor heure bu ko neexee fàdd tas assemblée nationale ku si nekk nag wéyal si cëgg liggéey yaa xam loolu ci boppam député yi ne mukk du ca dal daal di koy retiré ba mu set. Mhm. député yi ne mukk ñun duñu voté loi bu nga xam ne nii dañuy fàdd dañuy rey am paaka baa ngi nii daasal ba mu ñaw. dañ ñii nga xam ne ñoo takk ñaareel ñii takk ñetteel. ñeneen ñi nga xam ne am nañ ay deuxième bureau troisième bureau. Ah. doon ca doon ca doon. asma asma yaa ngi may wax loo de ah. yéen député yi tiitoon nañ de ñu ngi doo xalaat déjà bor yi ñu amel banque. bor yi ñu def prêt <laughs> ñi def prêt ba cinquante millions. waaw <laughs> fu ñu koy fayee. ak ñi nga xam na Macky da leen doon woon pouvoir am ak da leen woon dooleem ak ñee nga xam amoon nañ projet xool benn xale ci télé bi nii rek am projet ci moom. am <laughs> Ndakaaru we su ma fayee ko weer wii moom moo ko moom <laughs> mais nag heureusement ñoom ci boppam nee nañu mukk du du ca dal président Macky Sall nag nee ñu dafa jënd galaas retiré li nga xam ne moom mooy euh, projet boobee nga xam ne moo jur coow li 87 boobee waaw yéen kaay ba tey dikk sa ba mu retire mbir yee am Abdou Aziz Diop mii Azizo mii. nee ko. nee na ko Macky bàyyil pexe <laughs> ngóor pexe bàyyil pexe. dee na ko pexe ngaa pexe pexe pexe ba lépp seen lépp yow pexe la bàyyi pexe moonte moom conseiller la de. conseiller la si Macky Sall. ñaata moom duñ xool doosu pexe moom ci pexe Macky Sall. waaw moom mu xaar ba heure bii di doog a. loolu ah nag def na liggéeyam nag. conseiller conseiller na ko. Eh, mais du waaye boo yow yow yow bu fekkee chaque fois yaa ngi conseil kooku di pexe ngay conseil miy pexe. kon yow amoo amoo yow pourcentage si pexe yi. actionnaire nga ci ah. mais nii daal président mën na bañ a yégoo ak moom ci loi bi mu fës mu conseiller ko ci. nee na yow yàgg ngaa pexe sa lépp pexe la waaye moom lépp léppam pexe la waaye moom it lépp am conseil la te mu ko daan conseil ca pexe ya. loolu tax mooy xaar wóor bi. ah tamit nag nañ waxante dëgg nag. <laughs> ah di doog wax ci kaw. est-ce que doyul. ah waaw bu doyalee na wax rek na gore rek. Ah, ñaan ci njëkk rek président libéré ko. si <laughs> njëkk rek moom itam si <laughs> sa mbeer xas dafa bind mu ne moom nee na ko moo ko doon xeexal bi muy pexeel Wade 2012. waaw moo ko doon xeexal bi muy pexeel Karim Wade. waaw nee na moo ko doon xeexal bi muy pexeel Khalifa Sall. waaw moom nee na moo ko doon xeexal bi muy pexeel Abdoul Mbaye. waaw moo ko doon xeexal bu muy <laughs> bu muy pexeel Sonko. moo ko doon xeexal bu muy pexeel Aminata Touré. moo ko doon. xeexal mars 2021 ak juin 23 waa tamit nag nee na ko waa ton waa tonton Aziz Diop boo noppee doonu wax yow askan wi lu tax <laughs> dama te dama yegg ci lu ma ci teg <laughs> en tout cas Azizo nee na ko Macky bàyyil pexe waaw sàll ngaari lam tooro bur jëre bàyyil pexe <laughs> nee nañ président Macky Sall wax fa dëgg neex yàlla. mit Bamba du maamam de. waaw ah, Aziz oh, sa maam la moom laa noonu wax de waaye nag comme Bamba du maamam nag wax xaw ma nag. sëtu la Dior Diop la xëj na. xaw ma daal moom. mit bi nga xam ne président Macky Sall amoon na ko war ma bi daanaka daraja biñ ko ajewoon ci kaw. mi ngi commencé rot. le président Sall ne doit pas suivre un illettré qui ne lui conseille que du mauvais. zizaay wax de. Ziza Diop mii. ah dafa am ku jël place am kon. Aziz mii nee na ko ñun say conseil lañu ngóor pexe bàyyil tere bi nga xam ne mënul bind a mu je jóge gauche mënul bind mu jóge droite xam ngeen li lool mhm. waaw nga booy bind tubaab nii ngay bind mu jëm nii. booy booy bind arabe lay mu jógee nii. nee na ko illettré bi nga xam ne boo ko bindalee turam du ko liir. Ah. ah nga bëgg koo topp. illettré gi kanam. ah comme tey moom de tudd na ko waaye comme moom quotidien bi tudd ko am da ko tudd ci biir doo ma yëral. moom moom tudd na ko ma tudd ko ci audio bi. audio buñ ko attribué buñ ne moom la. audio nga xam ne nee nañu moom moo wax. ma bañ a tudd. bàyyi ba liir tur bi nga doon. lan la bëgg ma tudd ko. Ah, baax baax gi ci bi. wala doole ji ci illettré gi. tur bi ci illettré bi la bëgg. wala kàddu yi ci illettré gi. li mu bëgg ma tudd ko rek mu wax ko. <laughs> <laughs> nee na ko président Macky Sall bàyyi illettré yi ngay toog. wax fa dëgg neex yàlla ñu ku lay conseillé garab bu la sutul du la may ker. est-ce que tam du IDFA ñoo koy wax li mu bëgg ah, arrêter les combines contre ses adversaires nee na ko Macky bàyyi trahison bi nga ne yematoo rek ci ci di pexe. Abdouraas dalaa way ngir yàlla bu ma trahir ñaanuma ko yàlla bu ma trahir moom ma daf mel ni Aziz euh, mi Macky da ko trahir. aywa ko da trahir. d'après le mi nga def ci adversaire da dakk Benno demande le retrait de la loi polémique waa Benno kon démb daanaka ñoom it d'accord ñu ci loi bi nga xam ne daanaka moo jur coow li jamono joojee Alioune Sane devant la chambre d'accusation tey jii la mm. société civile bi nag jël nañu xeex bi jënd nañu ko mm-hmm. lebuñu ñaanuñu dañu teg cash ci table ji ne jënd nañu xeex bi ngir ñu libérer kii nga xam ne moo di Alioune Sané traitement médiatique des violences sexuelles au Sénégal association bi ëmb juriste sénégalais yi ñu ngay daan xaafu nag yàkkataankat yi ah les yi yàkkataankat yi nga xam ne xeebuñu xeebu ñu bebeñ juróom-ñetti weer xeebuñu ñoom daal nan kii rekk rek ñu dara c'est une amul bébé amul jeeg amul kenn eh, sunu tës boobu du jàlloon nañ fi ah maire bu mag maire bu mag boobu <laughs> agresseurs yi jàpp ko amoo dara loo jël si moom. ay yi léegi amuñ dara jël si moom ki jël benn ween ki jël benn ween di nàmpa <laughs> xoolaat ma ni mais xoolee. bon de eh après dafa ñëw fii de ñëw màgget mais bàyyi ko mu dem. loo ciy naan dafa am neew bu génnee ci foofu yow xanaa loo xiif xiif xiif. daa di màgget lucidité nag lucidité nañ ko ci. Ah! <laughs> agresseurs yi parfois da nga naan ñii waxuma la waaye bul xam lu ñu jël <laughs> yéene kaay bi daan na si dikk en ñoom juriste yi ñu ngay dànqaafu de nee nañ yéen yàkkataankat yi ah yéen yi bee boo ngeen waajal ñoo ngi seen kaw télécommunication <laughs> yow Yacine doo bàyyi ree yi anga ma taxee lu ma neex laay wax ARTP <laughs> nag daanaka euh, licence bii la cinq g euh, jox na ko Sonatel 34 virgule 5 milliards foofu moom loolu amoon loo ci wax moom 5G bi dikk na wala il faut ñu yaatal ko. doxagul la. nga ne. 4G bi doxagul. 4G 4 bi sax day bang ñu bang. 5 ñëw <laughs> waa 5 bu ñëwee lépp baax. plus de trente candidats déclarés pour deux mille vingt quatre nañu waxante dëgg nag. <laughs> lu tax yow réew mi rek ñu bëgg a jël sunu sunu sunu sunu kër gu weex gee pale bee ah bëgg ko def passe partout bëgg koo yeblu ku si nekk taxaw ne man man dama bëgg a nekk président ñun daal Sénégal kon ñun daal. yëpp sénégalais rek. yow fu la neex fële ne da ngay doon président de la république. mais c'est un droit. droit la certes <laughs> mais fa fas dul dem xel fay doxantu. ah. Hmm? nañu yem ci gudd ñu roof leen ci gañet nañu yem am na ñoo xam ne lay wóor ne yow waroo sa wax ne man président dama bëgg dama bëgg nekk président. parce que xam nga ne yow sa koñ. Hmm. mënoo fa nekk délégué de quartier. sa kër boo fa doon oote élection dina am say doom yu nga xam ne duñ la voté. duñu waaw. say propre doom. say propre doom. <laughs> yow ASC e ba sa koñ ba sax amoo fa poste. ba pare nga ne da bëgg nekk président trente candidats yoo xam ne ñoo waneegum seen bopp nee nañu dañu bëgg a jiite réew mi am na nag ñu ñëwagul. <laughs> am na ñu ñëwagul de. plateau bi waaw déjà yow candidat nga plateau bi te yow sax boo présent ah boo postulé nga am lu bari euh, plateau bi am na si ñoo xam ne war nañu nekk candidat lii moo tax nit ñi di présenté wu. na yow de boo présenté am lu bari. di nga di nga jay ginaar ba muy mbëkke te xamul ne bopp bi dafa ndaw. te amul béjjén. Ah, billaay wallaay lii mooy réew mi. bi nga xam ne nag moom la président Macky Sall doon sàkku anam mu jëm ci projet migratoire bi fonds yi nga xam ne dañoo dañ ko ciy def. yéen bi daal dina ci euh, euh, dikk. ma jàll ci critique yenn kaay moom la la critiqué tey jii dans le très lourd secret de Macky candidature de Benno Bokk Yaakaar Macky Sall a un véritable dilemme même après avoir partagé la réflexion avec ses lieutenants alliés et députés siégeant pour la présente législature moins le profil qui ne peut faire unanimité c'est la capacité de ce vénard à rentrer dans la peau du candidat choisi pour éviter la casse fu mu nekk nii moom tànnee tànneefam mooy nekk problème. Hmm. équation boobu moo nekk ci problème bi kan lay tànn koo xam ne du jur coow. koo xam ne du créer frustration du créer ay mer ngemb moom tànnagu sax déjà am na ay mer ngemb. Hmm, tànn na ba noppi nag. ah tànnagul. tànn ah? Ah, foofu laa toll. eh nga naan 2. waaw sama bëti nag temps yi neexul damaa jëm mag léegi a xam loolu bi jaaw itam yëpp bi jaaw na 24 heures dafa dikk le coup de canif bloqué modification bi nga xam ne dañ ko bëggoon def ci constitution bi foofee sa assemblée nationale mujj jàll nee nañu ko jamono joojee nga xam ne ni la la rififi entre PDS taxaw Sénégal et PASTEF GMS tense toutes les parties plus GMS. fu ñu toll ah Guy Marius Sagna. moom déjà moom si ñetti ñi la waaw moom nag lu lu muy wax ci parti yi lu mu ciy lijjanti ñetti ñi kay élection inclusive la ñu woote na ñëpp bokk na ñëpp bokk rek na ñëpp bokk Oumar Sow APR yëngu sur la modification de l'article 86 de la constitution moom ci boppam nee na opposition fu mu nekk ñooy def manipulation ci article 87 bi ñu bàyyi manipulation wala moom muy manipuler waat eh, moom nee na moom manipuler wul moom nee na opposition mooy manipuler. waaw léegi moom lan la tuddee moom lu muy def lu ko moom dafa jël position rek. <laughs> ñoom ñëppay dafa jël position rek. Air Sénégal mi nga xam ne daanaka ñu ngi ci ay jafe vingt deux milliards Air Sénégal se débat dans ses parce que nag nee nañu ay bori kese moo ko sonal Air Sénégal mi bu re bu mënta décoller ba léegi ah. bor la moo ko diisal. Ah. Ah, bori kese. bori kese. bori kese. nañ ko dimbali Air Sénégal Walf Quotidien daal di ñëw déjà Alioune Sarr mi nga xam ne candidat la samp na ndëndëm gannaaw ba mu fippoo ci AFP moom nag dikk na jëm ci wàllu migration irrégulière yi nga xam ne ndaw ña nga cay faatu ba léegi ña nga cay faatu comme ay weñ liñ gaal yaa ngi dem ñu ngi wàññi dee yi mais terew xale yaa ngi tëmb ba léegi di dem mbëkki moom nee na nag moom candidat bi Alioune dafa bëgg di dikkaat yi revita revitaliser les vallées fossiles ndax jàpp na ni bu ñu jaaree foofee mën na nekk solution jëm ci li nga xam ne moom mooy wàllum immigration dakkal li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy mbëkk mi donc moom Aliou Sarr xëy na bu ñu ko sampee moom Aliou Sarr bu nekkee président dina am solution ci wàllum màngaan gi wàllum mbëkk mi wàllum Barça wala Barcelone. nekkoon na fi ministre. nekkoon na ministre ñaari yoon ministre. Eh, waaye moom na tuuti wax jëf lu bari. dogo dogotee Omar Dogo Dogo tey de gëj ki dégg. aywa ma Omar Dogo Dogo tey de gëj nañ ko dégg. jël na plié anam moom. c'était la course. c'était la course. mais alhamdulilah. année bi dafa ñëw ci lu am solo. mooy ña nga xam ne yàgg nañu liggéey université bu taaroo bu taaroo. université bu soppee xar kanam. fournisseurs yi nga xam ne ñoo dugaloon seen xaalis foofu la depuis Abdoulaye Seydou saw ba wi jiite kudd waaye ba léegi ñu ngi topp si ginnaaw seen koppar bi ñu wootee ngir jàpp ñoom ñoo njëkk ñëw ngir dugal seen xaalis ñu si bëri ci entreprise yooyu tëj nañu ña fa doon liggéey seet nañu leneen xale ya sa nekkoon boo xefee dem nañu mbëkki ndax la ñu ngi topp seen ginnaaw seen xaalis ba dugg na te ba fii France daal di xëddeen nañu leen dimbali jox leen ndax bi jàpp jotee dañoo jàpp bi liggéey jotee dañoo liggéey ana ojaar université bi ñoom ñoo ko soppi xar kanam gi ba man dama bëggoon delluwaat fa ma nekkoon. Eh. pavillon F toll ak temps bu muy def. Eh, agent judiciaire de l'état moo koy gis. ma nga fa dugal nañ ko fa. mais mënuñ fexe ba gëstu leen am ñu retour. Oja dafa dikk ci benn atelier bi nga xam ne ni atelier njuuj njaaj la ñu ko tuddee spécialiste en constitution sama mbokkum Tëngéej bi Ismaïla Madior Fall ma nga ca mooy apprenti ba waaye président Macky Sall daanaka mooy borom atelier bi moo koy diriger.